waaw loolu dëgg la parce que mbëri ndaw yi moom chaque jour rek làmb ñoom ñoo siy gën a dee mbëri ndaw yi moom làmb bu yàqoo wala mu metti ñoom ñoo siy gën a dee parce que tamit boo xoolee tey jii nii VIP yi xam comme li ñu wax rek ñoom peut être am am nañ ko ba pare coono bi ñuy dalal mbëri ndaw yi ak liñ siy daj dëgg ñoom duñ ko daj loolu moo tax benn sant xam nga ñoom war nañuy bàyyi loolu quoi war nañuy bàyyi xel aussi tamit ñoom ay mbëri ndaw lañ woon parce que tamit pour man lii nii ñoom ñoo ko waroon njëkkee te pour man du nii sax lañ ko waroon wootee Gris Bordeaux moom mooy président en activité ñu koy nuyoo au passage pour man li mu waroon def mooy woote mbër yëpp ñu dajaloo arène national pour man du woon loo xamante ni moom da def sax moom kese moom dafa waroon woo képp koo xamante ni mbër nga da ngay takk ngemb mu woote ñu dajaloo arène national mais yaay ñëw ku ci nekk nga mu jiitu wax li nga xamante ni moo naqari ñëpp xam nga mu doon benn wax boobaa yii nii yëpp du am keneen du woote conférence de presse keneen du woote ay point de presse kenn du fi waxaat di gën di wax dara non wane bi Gris Bordeaux wax gis nañ ci suñu bopp benn côté benn côté jàpp ne mënoon na gën a organiser bi ñu ci gisee suñu bopp mooy wax na kaasal kaas na ci làmb kaasal na mbëri côté boobu dañ ciy d'accord dañ ciy ànd parce que ñun la kaasal ñun ñëpp la kaasal surtout ñun mbëri ndaw yi bopp ñun ñëpp mais dañ ne tey jii na gën a organiser ni mu doon gën a mooy tey ñu wootee woo mbëri yëpp tey jii nii képp kuy mbër ñu wool la arène nationale joxante fa rendez-vous ñu dajoo arène nationale woo presse bi ñu ñëw ñu jàkkaarloog presse bi boobaa nga xamante ni du doon kenn nit du doon ñaari nit képp kuy mbër laa la dañ la woo di nga fa teg sa tànk di nga ñëw te boo ñëwee boobaa moom mi nga xamante ni mooy président des lutteurs en activité bu génnee wax rek dina waxee ci kàddu mbër yëpp boobaa benn wax lay doon te foog naa ni wax boobu noonu moo doon ëpp solo moo doon ëpp sens moo doon ëpp doole ndax boobaa bu bu ko defoon te jii nii wala bu ko defee amaana tey jii nii bëgg mën nañ koo am ci nu mu gën a gaawee waaw li may tontu ci loolu noonu wax naa ko presque sànq mooy lutteur en activité ak ñun parce que déggoo amu fa quoi xëy na peut-être ñoom nag ñooy suñu ay kilifa ñoom seen ay kaddu moo ëpp solo sax suñu ay kaddu mais lépp solo bu solo mooy tey ñoom waroon nañ mën a woote bu fekkente ne tey jii li ñuy wax dëgg la war nañ mën a woote tey jii nii képp kuy mbër ñu joxante dig daje arène national ñu daje fa nekkul koo xamante ne da ngay woote si conférence de presse wala dara non ñoom ñi nga xam ñooy lutteur en activité tey benn griwo moom mooy président bi su jëloon téléphone wala vocal kese su ko yóndee woon laa wax ci groupe whatsapp yi woote képp kuy mbër bés sàngam dañ la soxla national nationale boobaa benn mbër bu ndaw du des ñëpp a gis seen bopp mbër yi ndaw yeeg ñu mag ñeeg ñëpp ay ñëw arène nationale ku ci nekk nag boobaa bu ñu ñëwee moom mu yor kàddu gi ci kàddu mbër yëpp mën na ci wax moom kese boobaa benn wax mooy am dootul soxla keneen di génnaat fenn naan ay da ngay wax wala da ngay wax parce que lépp lu ñu war a wax tamit wax nañ ko si jour boobu noonu ba pare non loolu weesoogul loolu weesoogul loolu weesoogul laa loolu weesoogul te tey loolu ñu ci ciy lancé message tam Gris Bordeaux bu ñu sañoon mu doxalee ko mu mu mu woote mu woote arène nationale mbër yëpp nga xam ara arène nationale am suñu arène la ñun mu woote fa jàpp jour bu ko neex mu woote fa mbër yëpp mbër yëpp dajaloo ñu dem foofu noonu parce que tamit xalaat yëpp ma ñun ñëpp ñoo bokk bëgg-bëgg mais amaana xalaat yi wuute na ak idée yi xëy na peut-être ñoo bokk bëgg-bëgg xalaat yi tamit mën na wute ku ci nekk tey jii mën nga loo ko dolli moom moom mi nga mooy suñu ci nekk mën nga am loo ko dolli kon tey su dajalee ñëpp tey jii mbër yëpp ñu ñëw taxaw ku ci ñu wax li ñuy war a wax ku ci am sa xalaat bu rafet wax après moom mu jël kàddu gi wax presse bi boobaa amaana tey jii loolu jàpp man gëm naa loolu sooy su ko defoon tey jii ni wallahi azim lu bëree bëree bëri dina saafara yee te man message boobu kese laa koy lancé ah man du ma classe kenn man classe ma benn VIP classe ma kenn tey jii ku fi ñun ñëpp ay nit lañ doofu ñu junne jàpp ñu xam nañ lu baax xam nañ lu bon comprendre képp kuy doxal làmb wala ngay wax loo xamante ni neex naa dégg dañ ciy ànd ak yow boo fi waxee yenn wax yoo xamante ni tamit déggul tamit dañuy génn taxaw wax ko xam nga loolu kese la parce que tamit mbëri mag yi bokkuñu ak ñoom écrit bokkuñu ñoom dara yaa ngi dégg duñ ci fëgg buntu kenn tamit mu ñuy may cent franc mais association bi les lutteurs en activité lañ ci def. dafa waaw ah, man changement boobu maa ngi a yëg moo tax may wax ni sax loolo tax ma ciy wax parce que tey jii nii boo xoolee boo gis gën a gis tamit moo woote conférence de presse di kaas yu mel noonu moo tax xam nga la ma la parce que tey jii nii ñun ñi ñëpp ay leader en activité lañ parce que toll nañ foo xamante ne tey jii nii même bu doon ñaari nit wala benn nit sax buñ leen nee def leen lii dañ koy def buñ leen nee aw leen fii dañ koy aw comprendre nga rawatina nag mu doon mbooloo boo xamante ne tey jii nii luñ fuñ leen awloo ñu aw fa luñ leen defloo dañ koy def kon tey jii nii am na loo xamante ne tey jii nii ñun am na loo xamante ne tey jii nii c'est normal c'est normal même bu ñu si boolewul tam ñun ñu boole suñu bopp noonu la deme nag